rahman rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi di nu déglu ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média nuyu nañu sunu président directeur général mboolem directeur ci biir kër gi wéye la nuyoo boobu nag dem seeti ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen bàyyi xel bu baax a baax di kontaan itam ci ñoom di leen ñaanal yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dolli leen jàmm dolli jàmm itam ñi nga xam ne ñooy sunu ay xalifa généraux noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen sopp macha allah di leen balu àq waaye itam di sakku ci ñoom ñaan macha allah ndax saa su ne. ñu seetlu li nga xam ne ñu ngi koy def euh, ci réew mi te macha allah ñaan yi nga xam ne itam ñu ngi koy ñaan sunu borom euh, di ko nangu yal nañ fi yàgg lool te wér ñu dugg ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi ziyaara maladie bu baax a baax bàyyi leen xel ñaanal leen ñu tane ba gaaw dellu seen ay activités acteur de la santé yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi seet itam ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw ziyaara leen massalu leen coono toggaay yooyu di leen fàttali rek ne yàlla mooy dogal bu ko neexoon mu dogalee mbir yi neneen foo xam ne sax bu ñu leen nammee mënuñu dem ba teg leen loxo indi leen macha allah waaye lii mu def yàlla nay càngaay ci ñoom te nu gaaw a gaaw doxi seen ay activité ndax àdduna lépp activité la ñu ngi fàttaliku ñi ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk yal na yàlla euh, yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe macha allah ci loolu la ñuy boole sunu ay way juru bopp sunu ay wasila sunu ay soppe ya na yàlla tas ci seen barke yóbbu ci aljana na bisimila leen ci seen émission wareef ñu ci feggoo saa su ne ak Ndoye Bane tey itam ñu am beneen invité invité boo xam ne moom dafa smart dafa digital te moo ne oustaz la xam ngeen àdduna dafay dox bu njëkkaan boo waxee sëriñu daara rek ñu nga naan ma nga jël alowe ba toog waaye léegi sëriñu daara itam dañuy nekk ci réseaux sociaux yi dañuy communiquer communiquer ak le monde extérieur mu mel ni nag moom sunu biir la nekk sunu collègue la El Hadj Assane Euh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax man li ma koy wax yëpp dafa bare ba bu dikkee macha allah <laughs> euh, ma daal macha allah oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay euh, waaw maa ngi lay maa ngi lay fay Eva. Ah. di la féliciter. macha allah ci émission bi. ndax heure bi léeg-léeg buñ amul lu ñu def rek moom la ñuy toog di ko suivre mm. euh, di ziar bu baax ñi lay topp ci wareef diggante altine ba alxames mm. ak ndoy baan ak tem yu am solo yi nga xamante ni toujours yeneen kii fi indi ngir yee nit ñi mm-hmm. waaye itam ngir fexe doomu aadama yi toujours ñuy jóge ci anam boo xamante ne ni gënul di dem toujours si li nga xamante ni moom moo gën si wàll yëpp kon loolu dafa nekk loo xamante ni lu ama am solo mu mm. nekk émission boo xamante ni képp ku koy topp di bàyyi xel li liñ fiy wax waxuma doo juum de waaye sa njuumte lu néew lay doon kon loolu ñu ngi leen si ñaanal yàlla yàlla na sax macha allah suñu juumte yàlla lu ndaw macha allah li ma naan bés Maodo Faye sama euh, càmmiñ boobu maa ngi koy nuyu dafa am wax bu nu doon mës di waxtaan baal ma ni ko euh, Maodo oustaz mu ne ma ni ko suñu bàkkaar ya yàlla na doon négociable macha allah. ndoy ban bisimila. jaajëf Eva ñu ngi lay ziar di jaar Oustaz di jaar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr mm-hmm. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér mu mbokki taalib yëpp ak xalif généraux yëpp. di jaar waa Pire Sañu Xoor sunu xalif ba sëriñ Mansour Cissé sëñ Maodo Cissé ak moom parent Djibi Diagne ak monsieur le maire Serigne Boub ak notable ya fa ne yëpp. Mm-hmm. ñu ngi leen di jaar di ziar Oustaz sa xarit beeg yëpp. Mm-hmm. xam naa li ngeen doon waxtaan fii rek jar naa wareef. <laughs> man nag bi enregistré naa lépp nag xam naa ne après naa xool nu may def moom. baarakallah li nga wax fii yëpp. doy na waar de. nu ah. ngeen nuyu ajaratu Faat si Daba macha allah. sunu xel dafay dem ca Tiwaawan ci sunu kilifa bu baax macha allah. sëñ Mbaye si Abdou nu ngi bu baax a baax a baax daf ci am euh, macha allah sunu kilifa yoo xam ne. Mm. boo échanger ak ñoom. Mm. échange bi du la bàyyi daf lay topp. Mm. Euh, day wone seen dimension ak seen tolluwaay si seen diggante ak seen borom ak li leen yàlla jagleel waaye itam ak toujours li ñuy bëgg mu nekk si ñoom ñu koy bëgg di ko bàyyi ak njaboot gi mhm. si ay expérience yu ñu dund si xam-xam waaye itam si ay orientation yoo xamante ni yëpp yu positif la maanaam yoo xamante ni doomu aadama bu si ngoyee rek day am njëriñ damay fàttaleku suñu maam Cheikh Al Hadj Abdul Al Amin radiallahu taala anhu mhm. nga xam ne suñ daan am jataay du ma bëgg jataay bi jeex waaye léeg-léeg mbooloo mi day bëri wala ñi koy xaar bëri mais moom itam du bëgg jataay bi jeex ndax toujours day bëgg di joxe le maximum possible ndax dafa xamoon ne du ñàkk xëy na te ñëw na bés dina ñëw dootu fi nekk mais te lépp loo xamante ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala baaxe nag ko day bëgg toujours di ko bàyyi ak njaboot gi parce que mission yàlla noonu la Eva toujours dañ koy transmettre ante noonu rek la te yàlla léppam communication la te kilifa yu mel noonu soo amee ak ñoom jotaay bu ñu lay wax yu bëree bëree bëri rek day doy am am njàng doy loo xamante ni mën nga si téye Euh, leçon boo xamante mën nga si dundi toute une vie ba les génération futures sax bu ñëwee itam man si man si dund loolu dafa nekk loo xamante ni lu am solo moo tax may faral di wax ne lu am rafet su amul woon mu ñaaw maanaam suñu mag ñii ñu yàlla baaxee uh-huh. fii si réew mi uh-huh. te ñu nekk fi lépp rafet uh-huh. bu amul woon imagine buñ fi nawul woon tey ñun lu ñuy doon. munu sañu sañu ma ko imaginer. voilà mu ngi noonu <laughs> lu lu ñuy lu ñuy dundee. Mm-hmm. naka la ñuy nekkee ak société bi nga xamante ni tey jii ñoom ñëpp ay régulateurs sociaux lañ. Mm-hmm. bu dara naree xew rek bu ñu waxee rek ñëpp na tekk. parce que suñu borom subhaanahu wa taala moo leen jox kàddu moo leen jox dayo moo leen jox daraja boole ñu ak ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy seen njaboot kon ñoom ñëpp dañ leen di ñaaneel yàlla di wax ne nag toujours ndaw ñi maa ngi koy wax sànq. Mm-hmm. ñu mel noonu bu ñu yëkkatee kàddu rek mhm. nañuy bàyyi xel seen ay wax mhm. ndax dañu ne mag du yàlla waaye yàgg na ak yàlla parce que maa ngi nuyu équipe bu Pape Cheikh jàlloo ak euh, Mamadou mbay Garme sama euh, Garmi sama soppe bopp bi dafa fekk tey ci suba dama gis ci tele bi ñu tàggee ma Lamine mbay ma ne xaw ma fu ma nekkoon ma ko yëkk yàlla xam na am na at daanaka fu ma mës a gis ne ma ma faam. dëgg la macha allah am na nit ku baax dem na yàlla na ko yàlla yërëm. amiin amiin tey gi ko yëg euh, Ndoye Bane mu waxati ma. Mhm. nee na xamul ban monde laa nekk mais <laughs> alhamdulilah. macha allah mbokk mi nga xam ne itam mi ngi ñuy seetaan mën nga woote ci 88 628 22 22 88 628 04 05 ngir nga bokk li nga xam ne ngir nga bokk ci li nga xam ne mooy sunu émission wareef li tax ñu ne sunu ñu nag yéen la yéen ak ñun sujet bu ñu fi yëkkati saa su ne dafay am solo rawatina nag bii tey ndax dañuy waxtaanee réseaux sociaux yi am na jamono yoo xam ne xamuñu xalaatuñu woon ne dinañu mës a dem ba communication euh, yombe nii dinañu mës a dem ba link suñu diggante amee nii dinañu mës a dem ba boo nammee wax dara rek nga toog ci bërëb wax ko mu mu mu euh, jàll. ci ci ci monde entier bi yëpp macha allah. en quelque fraction de seconde. ki nga xam ne mën nga Suède ka nga xam ne mën nga fële ca Londres ma nga Norvège fu mu mën ci doon France dana mën a xam li nga wax. am nag ñoo xam ne dañu koy utiliser ci lu baax wàlli ak euh, jàngale ak yeneen ak yeneen njaayeen yi nag ñoom di ko utiliser ci léeg-léeg te lay doon léeg ñu waxal nit loo xam ne dara du ca dëgg léeg ñu ñu indi loo xam ne jiixi jàq lay doon ci réew mi yow oustaz Hassan mm. en tant que nit koo xam ne yaa ngi ci diine bu mm. baax a baax mm. versé aussi dans le Coran lan la la yow euh, réseaux sociaux yi indi waaw euh, dafa nekk loo xamante ni comme ni ñu ko junjee dafa nekk mode de communication boo xamante bu yees la mën nañ wax mhm. ndax bi mu xawee yàgg na yàggul mhm. mën nañ ko wax ay at la tuuti rek si gannaaw mhm. ak ampleur bi nga xamante ni commencé na ko am parce que communication la mais xeetu communication la boo xamante ni xamuñu ko woon man je me bi ñuy nekk étudiant fële ca Tunisie rek jamono yooyu ay lettres lañ doon bind te c'était dans les années 2000 début année 2000 yi ay lettres nga doon bind boobu yi yëpp xewul kon nga xool bi ni muy demee non seulement na mais itam nekk na lay jur. nit mën na si jaaree baax. waaye itam mën na si jaaro nekk koo xamante ni si sofaan lay dox ndax àdduna moo ni mës di tëddee. toujours foo gis am ñoo xamante ni dañuy defar. am na foo xamante ni ñu ngi si wet gi di yàq. ndax yàlla ba mu defiyee iblis la iblis ba mu defile defiyee yàlla. loolu la ko waxoon naka maa ngi dem waaye nag dinaa leen sànq. dëgg danaa leen wax loolu lu ñu war ta wax. danaa leen dem noo fu ñu war ta dem danaa leen jëf loolu lu ñu war ta jëf. mais yàlla dana ko demal ñu ngi noonu yaa waaye am na exception loolu di ko mën a defal def ñëpp ba mu des sama gaa yu sell yi lu ñooñu doo man si ñoom dara ñi nga xamante nii xëy nag dañ xaw a këfin yàlla ne ko même boo leen jumloowee ba ñu juum bu ñu ëlbatakoo jéggalu ma man danaa leen jéggal ndax man man borom bi subhanahu wa taala maa moom njéggal loolu du leen rek nit ki toujours da nga war a xuus si li nga xamante ni sofaan la wala naka sudul noonu wala lu bon ñu jéggal ma si kàddu gi parce que comme ni nga ko waxee mode de communication te alquran ak l'islam lépp communication la boo xoolee verset bi njëkk a wàcc si alquran mooy iqra apprends jàngal te ku la jàngaloo mu ngi lay loo ku la jàng loo mu lay communiquer loo parce que li ngay jàng bés dina ñëw nga pratiquer ko pratique bi communication la mhm. wala nga wax ko wax bi communication la la preuve yàlla bi mu waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaxle dem tëdd si këram naan zammiluuni zammiluuni suñu maam Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu mu ne yàlla dafa ñëw yebal Jibril ne ko demal ne ko na jóg yaa ayyuhal muzammil qum fa andir mhm. jógal fi nga tëdd nga dem nga xupp gaa ñi mhm. nga waar leen nga waxtaan ak ñoom loolu maanaam nga communiquer ak ñoom mhm. wax leen li yàlla ji bëgg ñu jaar si wax leen li yàlla ji tere ñu moytandiku ko réseaux sociaux yi nag dafa ñëw am role boobu noonu te role bi li nga xamante ni moo si war a gën a nekk lu essentiel mooy lu positif parce que ñu bëri tey jii nii comme ni nga ko waxee ñu ngi siy jàng mhm. ñun ñi nga xam ne dañ nekk si daara ji di liifantu di nap na bi mhm. xam nañ si dara parce que mode de communication la boo xamante ni dafa gaaw ñu ngi télécharger ay application ay application suraat yi nga mënul yaa ngi fexe suraat na la ka pour nit ñi xam mhm. pour nit ñi nàngam mais tey jii nii loolu xam naa sax nañ si kanam nit ñi nañuy moytu tamit di si dugg di si xuus ndax léeg la nga gis ku ne la dama dem Google. waaw tàppe dara comme moteur de recherche la mu jox ma Google laa ko gisee may faral di wax ne Google la fa nekk def fa boppam ay nit ñoo ko fa def. njuumte mën na cee am njuumte mën na cee am. Hmm. sabotage mën na cee am. subxanahu désorientation mën na ci am. parce que nit mën na toog fële di xeex lislaam waaw am ay moyen ay yi kiiwam xam ne jullit ñi léegi pratiquement ñëpp ñi si ëpp dañuy utiliser réseaux sociaux yi ak mhm. Google ñu baal ma si publicité bi nga ñëw ne par exemple dama doon laaj ndax ku am janaba boo jàppee rek te sangu dina baax nga dem tàppe mu ne nga gis ku la fa bindal waaw te doo xam ndax jullit la waaw day am. te doo xam ndax jullit la doo xam ndax jullit la doo xam ndax sabotage moo ko tax a jóg. doo xam ndax désorienté la yow. Mm-hmm. moom moo ko tax a jóg nga dem gis loolu rek ne oustaz Assane li mu wax wérul ndax dem naa si Google qui est Google qui est derrière. loolu itam te si réseaux sociaux yi la nit ñi dafa war a nekk loom dañ siy bàyyi xel Google du lu ñuy jànge diine boo bëggee jàng sa diine da ngay dem à la base wala nga gis ku dem à la base. nga jàng mm-hmm. donte euh, si réseaux sociaux yi nga nekk mais am na ñoo xamante ni boo leen laajee à travers les réseaux sociaux wala nangam groupe yaa ngi fi yeneen ak yeneen ay groupe bi diine nangam nga gis ko si orienté bu juumte amee nga xam ne oustaz Assane nii moo ma waxoon nangam nga xam nooy gind ko donc loolu aussi ay erreur la yoo xamante ni daf si nekk ñenn ñi ñu ngi koy def ngir ñàkk xam. te jàpp naa ne moo si ëpp sax. ndax nit du xam sofaan ba pare. di ko def ak li nga xam ne moo si nekk. Uh-huh. si ay conséquences kon daal réseaux sociaux yi mu ngi noonu. Uh-huh. li ko tax a jóg si li ma yaakaar. Uh-huh. mooy defar ndax am na tey jii nii ñoo xam ne jàng nañ si seen. ba li ngay li ngay jooy moom la bàjjen yee jooy moom la bàyyi yee nijaay yi di ko jooy. ne bu jëkkaan boo amee sa doom bu ko yenn ni jaaxalee dafay dikk ba ci sa wet ñëw ci sa pegg laaj la mhm. waaye léegi bàjjen yi kenn laajatu leen google lay bàjjan ndoy baan di simila jaajëf jaajëf oustaz google mooy seen bàjjan la la daan jaaxal ba nga woo bàjjan te jóg moom mm, mm. boo sàggane léegi google da ngay tàppe rek laaj ko google wala wala ñoom ah. gaa bàjjen bu nekk xam naa mami li ngeen ak may feelu ca el ba wala ñoom bàjjen bu nekk ci facebook bi rek mm. wala bàjjen bu nekk ci groupe bu whatsapp bi dëgg la ñu la di xelal loo xam ni mm-hmm. ak di leen digal loo xam ne ñoom defuñu ko mm-hmm. nañu ko maanaam fii dëkk bi nit da lay digal wala mu lay pousse ci loo xam ne moom defu ko. dëgg moom defu ko. Mm-hmm. su doon moom la du ko def. Mm-hmm. xalaatu ko. moo mm-hmm. la ciy dugal moom dugg ci. Euh, réseaux sociaux yi comme ni ko Oustaz waxee lépp wax naa la ko keroog paaka ñaari boor la. bii day dagg bii du dagg. mal nécessaire la. soo ci bëggee baax yoon wu baax a ngi ci. soo ci bëggee mel neneen loo ci bëgg mel rek mu ngi ci biir euh, réseaux sociaux yi. loo ci bëgg mën nga cee liggéey. Mm-hmm. mën nga cee jàng alxuraan mm-hmm. mën nga cee jàng sa diine mm-hmm. mën nga cee jàng français loo ci bëgg jàng mën nga ko cee jàng waaye tamit soo ci bëggee jàng sàcc mën nga cee jàng sàcc mën nga cee jàng agressé mën nga cee jàng cambriolé mën nga cee jàng lépp lu bon loo xalaat ñu ci réseaux sociaux yi mën nga cee mën mën mën mën nga ko cee mën nga ko cee jàng yow nag su boobaa nag yaay seet su fekkee nag yar na la sa kër mhm. nga am éducation de base bu baax mhm. da nga ci jéem a jàng lu baax mhm. su fekkee lu baax rek la wër seen biir kër sa baay baax kenn mosu koo xamul lu bon sa yaay baax kenn mosu koo xamul lu bon nga judd fekk say frère baax say ndijaay sa côté yëpp baax soo demee ci internet ba doo fa jàng loolu lu baax waaw des fois nag kéwal euh, tëb doom jëbët yenn saa yi loola am nga dem ci réseaux sociaux ya Euh, nit ñi yóbbaale la xarit yi mm-hmm. yóbbaale la mm-hmm. mbër yërëndoo gi yóbbaale la ba nga def fa loo xam ne waru faa def mm-hmm. nga xëy suba auto police garé sa biir kër lan la def dafa am lu mu def ci réseaux sociaux ya wala dafa am lu mu fax boo yiñ fiy jàpp yenn saa ci affaire terrorisme lu leen di yóbbaale ay mbër yërëndoo rek ñu dem wax lu ñu warta wax dugg ci lu ñu warta dugg ba ñu xëy suba woo leen am na ay jamono temps yële heure bii daaw xam ma am na ñaari am na benn genre groupe whatsapp yi ñoo gën a dangereux nag ci réseaux sociaux yi la bokk groupe whatsapp yi am benn groupe whatsapp boo xam ni ñoom dañoo nekkoon ci groupe rek di saaga sëriñ si hmm, subhanallah defe naa euh, ba ma jot ci lu tolloog ay soixante quinze audio hmm. ay quinze audio est-ce que est ma la koy ay ay ay ay saaga yoo xam ne man ba ñetti audio laa ci déglu rek arrêté ko man maa jël am na benn jour ma toog ci internet bi naan dañoo war a tëj WhatsApp nit ñi di ma attaqué boobu may attaqué loola laa gisoon. bañ yaa ngi am nuyoo directeur bureau ki yor passeport. allo Ndour Ndour waaw ma nag flic euh, bi may wax ci yow nee na xamuma ci sax dara. allo ah tegal foofu baaraam. ngi lay delloo nuyoo bu baax a baax. wax. di nuyu tonton ak monsieur Pape. ñu ngi la koy mhm. delloo bu baax macha allah. Euh, di wax ne kontaan naa ci émission bi. Mhm. yàgg naa bëgg a dugg la première fois tey ma dugg. Mhm. dëgg la. waaw dama bëggoon wax tuuti rek ci WhatsApp bi. bisimilah. que ne yàq na relation amicale boo xam ne def na plus de quatorze ans. c'est vrai. waaw relation bi ak man la ak sama copine. ah. waaw boo xam ne depuis ñu nekk xale ñooy ànd. Mhm. waaw ñoo daan xoolal ci fana ñoo doon jàngandoo. Mhm. ñoo bokkoon classe. Mhm. lépp ñoo ko def doom. daanaka ñoo sëyee doo ñoo tamit. ndeysaan doom yi sax ñoo doon ànd. ndeysaan. ci benn bis rek ay affaire de statut moo yàq suñu diggante man ak moom. anamu moom. mi ngi fii Dakar naka naka la tudd. ah damay leb tur bi. <laughs> dama da bëgg a jubóog moom xanaa da ko nam waaw namm naa ko parce que relation bu def 14 ans jàpp 15 ans ba suñu doom yi xamante di ànd loolu du loo xamante ne dañ koy fowe daal. mës nga dox tànk seeti ko. këram daaw ma fa bi loolu amee ndax dem nga doxi ko seeti ko wax ko li ci yow. non bi loolu amee dew ma fa. dem fa. parce que xam nga li waral man ma toog mooy. waa daan nañu ànd wax di am suñu biir ci ay affaire statut que da ngay def statut ñu jàpp ne moom moom moom wax. waaw waaw. voilà yu mel noonu daal mooy yàq diggante yu bari. ndeysaan. ba ci benn jour moo def statut ma gis sama bopp mais tontu Oh. benn euh, waxtaanu sëñ oustaz Modou Fall. Mm-hmm. waaw ñu wax ci affaire statut yeeg yooyu ma def ko statut rek bu gis ne moom laay waxal daal. waaw. Mm-hmm. daa di si gis boppam. ndeysaan. waaw ba wax ji sori man li gën a tax sama téye sama bopp dafa dem ba dugal ci yaay ak papa. Mm-hmm. ndax wax ji place yaay neewu fa place papa amu fa. waaw parce que buñ demee di waxante suñu biir ay affaire da fekkee moom fi samay wayjur di sonnee. fekkoo mm-hmm. ma walaakaana samay wayjur mm-hmm. te situation yi du benn loolu yàq na daal lu bari li waral man ma toog téye sama bopp mm-hmm. ndeysaan waaw looloo tax nag ma ne naa wootee wax ne WhatsApp sociaux yi mat na ay at euh, bi ñu amee problème ak léegi waa déedéet deful ay at ay weer rek la toll d'accord waaw mais dafa doon loo xam ne dafa ma marqué daal parce que man mosuma am xarit moom dong laa amoon comme xarit waaw mais dem na daal ba wax ma ci wax boo xamante ne gis naa ci sama bopp te bi sama yaay dégloo vocal yi ci wax keroog sama yaay jour boobu laa gis nga ñam tuuru ndax xaaru ko woon ci moom. Hmm. ndax wax na ma jour boobu wax ma ndax dafa jàpp ne moom laa doon waxal te yàlla seede ne njaboot jour wax jooju moomu ko sax. dëgg u oustaz li mu doon wax mooy li am ci dëkk bi ma def ko état mu jàpp ne moom moo tax may wax. d'accord waaw. léegi nag loolu laa wax pour ñuy def ci attention ci statut yi. ndax nit mhm. dina dugal loo xam ne te jàpp ne yow yaa tax mu dugal ko. boobu moomoo ko. a ah doy na doy na waar. doy na waar lool. Mhm. gisoo na keroog ndoy baan man nag xam nga dama dama maa ngi koy nuyu bu baax dama am rek benn fula. Mhm. man kooku dama ko man la concerné. sama nit sama nit ki ma bëgg. fii léegi maa ngi lay bëgg di la sopp. incha allahu taala lu nar a dox sama diggante ak yow. danaa am. Euh, naka lañ koy waxee woyofaayu boo xam ne danaa dikk ba ci yow. waxanteeg yow nga xool ma ma xool la mhm. man ni la la nga foog nekkul mhm. te itam bu ma foogee dara ci yow mhm. danaa yëkk ci sama téléphone ne la mbaadu li ma foog ndii la moo nekk di nga ma wax tout suite ne ma du loolu na ñuy mayante temps boobu c'est important waaw nga Sénégal dafa yéeme dëgg la temps yi passé gi nga ma def benn statut bi nit ñi ma naan soof ngeen bàyyi leen ku yor téléphone am statut lu ko neex nga naan ko ndoy baan koy xulool ndoy baan koy waxumaa kenn dara damay dugg ci internet bi wala ma dégg seetaan oustaz oustaz wax kàddu gu neex waaw boo xam ne ku ko dégg war cee jariñu dëgg la ma bind ko sama essai wallaay je dem naa la waa koo xulool dëgg koo joteel fekk jotewoo kenn da nga yeewu suba teel am envie bind dara ah, waaw bind ni nga gisee àdduna gis ni nga ni nga yeewoo hmm. mais soo ko bindee dañuy yóndee lu xew da ngay jël wayu Youssou Ndour ku moom hmm. la nga la koy waxal hmm. dëgg la yow waxo waxo kenn déedéet gi nga whatsapp bii waxoon naa fi ay jamono ni nañ ko ko contrôlé wala ñu tëj ko ñu bari mere ma. loolu ma gisoon noonu. audio yooyu ma gisoon. moo taxoon ma jëloon audio yi yi yóbbu ko ci autorité yi. ñu def ci ay enquête ba am ñu ñun ci ay jamono. def naa yëgoon ko Oustaz Fata Fata Saara ma joxoon sax affaire mu doon ñu ci doon wax ay. kilifa yu bari ay ay affaires yoo xam ne mën na yëngal yëngal. yëngal réew mi. Mm. ñu jëm ko étouffé am fuñ fuñ ko teg. Mm-hmm. groupe WhatsApp yi ngay gis nii nii nii nii. Mm-hmm. tas na kër yu baree baree baree mm-hmm. bari. jéeg yu bari. lekkatuñu naanatuñu toggatuñu toppatootuñu seen jëkkër taalatuñu seen i doom taalatuñu seen bopp seen bopp ndax whatsapp ak e, e, ak ak instagram ak yooyu noonu seen genre réseau yooyu nga xam ne ci la ñuy xëy ci la ñuy gon ci la ñuy yendal ci la ñuy ci ci la ci la ñuy fanaanal ci la wut ay xarit yoo xam ne musuñu leen a gis te toujours wax ko tey ji audio boo def envoyé ko ci groupe bi ñàkk nga ko fu mu dem yaa ko fa yóbbu parce que yaa dugal audio bi ci mbooloo moo xam ne soo yaakaar ne ñëpp bëgg ñëpp la bëgg nax nga sa bopp. dëgg la groupe groupe la rek. Mm-hmm. moo xam groupe bu famille mm-hmm. moo xam groupe liggéey kaay la. Mm-hmm. moo xam groupe groupe groupe rek la. da ngay gis koo xam ne bokk na ci ñaar téeméeri groupe. pour lan réseaux sociaux yi ya yokk na njaalo gi ci dëkk bi. est-ce yokk na fenn. ci dëkk yi ngir jégal ma ci wax ji yokk na ko. maanaam waaw yokk na naafeq gi ci dëkk bi. yokk na tricherie gi ci dëkk bi. bari na fi. yokk nag ndoxaan gi laa ko mën a woyoo ko ma yokk nag li mu yokk li mu mm. yokk dafa bari. loolu mi ngi fi woon. Mm. affaire bi da koo feeñal. Mm. mi ngi fi woon de. réseaux sociaux yi li muy génne lépp nag. mi ngi woon ci dëkk bi. gars yi dañ ko doon nëpp nëppal di ko nëpp nëppal. mais man li ma gën a contre mooy. nekkal ci li nga nekk. bàyyil keneen mu nekk ci li mu ne. da nekk ci li nga nekk. Mm-hmm. nit nekk ci réseaux sociaux yi naan la lu tax nga nekk ci li nga nekk. Mhm. lii ma nekk mu li mu nekk moom moom moo gën. Mhm. ba tax mu la ci saaga. dëgg la ci dépassé. dëgg la ci wax lu gis naa la temps yi passé réseaux sociaux yi gars yi di la attaqué attaqué yu méttee ak di la di di saaga Oustaz Assane mi parce que dañuy dañuy. ah dañu ku bañ Serigne Touba doo lan doo xam noo ko waxee. boo deewee dem safara. soo bañee seeni Touba soo deewee safara ba waxuma ne sax Serigne Touba mii nit rek. da nga bëgg ne ku bañ nitu yàlla. waa xam nga d' abord ndooy ma këf la foofu ñu ko fay balaa may avancé foofu parce que. li mu wax dafa am solo man ñaar laa si jànge par rapport ak kii woote nii. waaw bu njëkk bi mooy ñaaw njort am na seen diggante. ndax def na kële foog ne moom moo tax kon ñaaw na njort mhm. te yàlla daf ñu avertir woon alerte ñu yaa alladina amanu ijtanibu kathiran min az-zanni ñu ne ko lu tax mm. mu ne inna ba'da az-zanni ismun beneen bi mooy li mu wax mm. wala tajassasu bu leen di espionnante maanaam mandu leen yàlla dafa ne yéen ñi gëm yàlla gëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. mooy tandiku leen lu bari si njort mm-hmm. ñu ne ko lu tax mu ne li ëpp si njort bàkkaar rek ismun ak njuumte ak erreur la leen di jural mhm. waaye yemul foofu mu ne walaa taja sasu bu leen di lëñ balante ay mbir di xool di yendu Eva mm. si lu muy dox. Oustaz lu muy dox. yàlla daan si lu muy dox léeg-léeg mooy kim li mu wax si groupe yi. Mm. nga dugg ku ne waa Eva moom de nangam. wala kële de nangam wala kële de nangam ñu jëlante si suuf waxee na ni mbaadu waxee na ni wax ja nekk si groupe bi ñu yelleeku. dem si suuf di ko waxtaanee te loolu al alquran daf ñu ko tere woon. yàlla tere nañu si alquran mu ne. Mm. bu ñaar toogee. bu ñu wax si ko bu ñetti toogee kenn jóg bu leen wax si moom. mooy dëgg bu ñeenti toogee kenn jóg bu leen wax si moom maanaam loolu mooy ngeen bokk group mm. ñaar yelleeku si group bi dem di waxante fële. Mm. te ñuy waxante ñu ngi si biir groupe bi. loolu tamit bàkkaar la boo xamante ni nit ñi duñ si rendre compte beneen bi. est xam nga moo tax soppuma groupe wax ko fii man. dañuy jëwoon rek ak man mii da nga gis group ku ne salaamaaleykum ñëpp ne wiiw. ak gis keneen ku ne salaamaaleykum kenn du ko faale. waaw mooy li may wax ak beneen bi li ñuy bind si réseaux sociaux yi suñu loxo yi di ko tàppe ñu defe ne bàkkaar amu si bàkkaar yi kese la. dellu sil de. li ñuy bind. tapé commentaire. téye clavier bi waaw téye clavier bi wax la sofaan temps boobu nga toog di wax ndoy sofaan ñu ngi la bindal bàkkaar sa la ngay bind. boo tapé rek ñu bind malaaka wa taala moo ko mu ne. maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lu waay génne sa làmmeñ parce que li nga bind mooy li nga bëggoon wax am loo opportunité wax ko mais say loxo ñoo ko wax te yomal qiyaam yàlla nee loxo yi dañuy waxaat. alyawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun si suratu yaasin yàlla ne yowmal qiyaam na nga toogee woon tëj sa gémmañ sa clavier di bind boo ñëwee yowmal qiyaam noonu lay tëjaate sa gémmañ say loxo di wax maa bindoon si ndoy baan nangam maa bindoon si diwu nangam maa bindoon si diw nangam làmmiñ bëgg a wax yàlla ne ko kamaj kaste ko loxooy wax maa bindoon parce que dana wax loo cër bu defoon dara ñëpp jaaxleen lan moo leen wax loo ñu ne na antaqana allahu alladi antaqa kulla shay'in yàlla ma tëjoo téye loxo démb ba waxul ak tànk yeneen cër yi ubbi gémmiñ muy wax tey moo tëj gémmiñ wax loo loxo wax loo tànk wax loo bët wax loo nopp te li may wax alquran na te yowmal qiyaam noonu lay demee yaa ngi dégg dafa am loo xamante ni Ndoye Bane wax na ko léegi wax naa ko bu may ubbi mm. suñu mag ñii si réew mi bu ñu leen sagalatul ñaanalu ñu leen yàlla euh, royu ñu leen waruñu leen xarab ndax wax naa ko bu ñu fi amul woon kon heure bi ñun leneen la ñuy wax yaa ngi dégg yàlla moom moo wax ci xadiisul qudsi yi wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko képp ku jël sama waliyu nga noonoo ko amatoog moom affaire man nga amal affaire man maa lay déclarer guerre man yàlla yow déclaré wu ma guerre de man maa lay déclaré guerre. waaye léegi ku yàlla. te moom sañ na ko. moom sañ na ku ku ko neex mu déclaré la guerre. ku yàlla déclaré guerre lii tooy si kan lay jógee. xanaa ci yow si yow lay jógee mooy que mbugalam dana wàcc si yow te ku mbugalam wàcc si yow yàlla nañu si mooy safara bi dem contexte bi ñu ko doon waxee nag benn contexte la mm. suñu maam Cheikhul Khadim moo ayee radiyallahu anhu di 18 safar mm. mu nekk bés bi nga xamante ni ñi ne ko woon du fi amee mm. ba bañ ko jël yóbbu ko mais jullit sax laa wax warul bañ sax ndoy ban en tant que jullit doomu aadama warul bañ sax doomu aadama en tant que en tant que doomu aadama sëñ Maodo si sama papa maa ngi koy ziar dañ toog di waxtaan mu ne ma. nu ngi koy ziar ngi koy ziar ak yaay Sofiyatu ak waa kër gi. wallaahi ndeysaan maa ngi bu am solo bu ma waxoon. mu ne alquran daf si am benn aaya boo xam ne ku ko jàng war nga màndu. ma ne ko lan mu ne ma inna allaha binnaasi la raufun rahim mu ne yàlla dafa am ñeewante ak yërmande si nit ñi waxul si jullit ñi rek de. wala si juif yi rek de wala chrétiens yi wala athées yi de si nit ñi. moo ko ci gën a. yaa ngi dégg kon yàlla. mu mu tegal tegal loxo foofu dalal ki ci ligne bi. allo salaamaaleykum. waaleykum mbokk mi bisimilah. waaw. allo. yow rek la ñuy déglu ci émission Wareef. waaw dama bëggoon pour li ngeen di waxtaanee dafa neex. yow rek la ñuy déglu. alo allo. allo. allo waa wàññil sa télé ndax nga mën ñu dégg. man man ni coupé na. macha allah moom dem na waaw waaw hmm. li ma doon wax noonu. ni mu valable pour Cheikh suñu maam Cheikhul Khadim radiyallahu anhu noonu la valable pour Cheikh Seydil Hadji Malick mm-hmm. radiyallahu anhu noonu la valable pour Maam Baye Niass Cheikh al Islam radiyallahu anhu noonu la valable pour Seydina Limamou parce que ñooñu ku leen bañ bëggoo leen yow bëggoo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom ñoom ñoo ko fi wuutu moom lañ fi nekkal te ku bëggul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nga amal affaire te ndax ndax man yokkale tuuti nga door a dem mm-hmm. yahud yi dañu daje. Mm. ne Muhammad mii sallallahu alayhi wa sallam il faut ñu xam kan moo koy indil mission bi. sallallahu alayhi wa ne leen kii ma koy indil Jibril la tudd. ñu ne ko bés ni ki tey déclaré nañ ko comme suñu ennemi public numéro un. yàlla moo àddu ne leen képp ku noonoo Jibril ndax li muy indil Seydina Muhammad alayhi salaam yow jàppal ne bés ni ki tey sama noon nga képp ku noonoo ab yonant wala malaaka yi wala Jibril wala Mikaayil yàlla nee ne yow non seulement yëfër nga te man yàlla noonoo naa la. te kon ñooñu itam ku leen représenté si kaw suuf li ma doon wax mooy ñëli ko yóbbu woon li ñu bëggoon mooy du fi amee tey am na fi bañ ko ak mm. bañ li mu doon bëgg mu am moo taxoon ñu jël ko yóbbu ko mais yàlla defal ko defal na ko ndam 18 mm. safar fu mu jotee mm. xel yëpp dem si Cheikhul Khadim wóor na wóor na ak Touba te ñoom ña ko fa yóbbu woon 18 safar représenté wul si ñoom dara allahu akbar mais tey nekk na ndamal l'islam nekk na ndamal tariqa muridiyya nekk na ndamal Cheikh Ahmadul Khadim radiyallahu xam ne moom nee ñëpp fa kullu wirdin yuridul murida li xadratil ilahi walan yaxiida sawaun intama ila al jilani aw ila intama ila ahmad al tijani mm. yaa ngi dégg mu tëjee que id kulluhum qad an ala sawaabi nee ne fu waay mën a bokk moo xam dafa bokk si njabootu cheikh abdul qadir jilaani xanaa loolu moom mooy xaadir yi aw intama ila ahmad al tijani xanaa mooy tijaan yi wala fa mu njëkkee fa kulli wurdin wuridul murida li xadratil ilaahi laay laay boo ko waxee sa xel yi fu muy dem si kër Seydina Limaamu ci jeexul tariqa yi ak noonu ñu ñoo ngànk Sénégal mu ne ñëpp foo si ba jàpp rek mhm. mooy si téye si te xam ne fa ngay mujjee dana neex te sa sunu gis-gis tariqa dëgg boo boo ko téye faaw nga yaru boo ca bokkee dama dégg Cheikh Al Hadj Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu mu ne at turuqu kulluha mustanbatatun min al kitaabi wa sunna nee na tariqa yëpp hmm. seen source seen balluwaay fa ñuy tibbee mooy alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam demul Touba. li mm-hmm. xam sëñ Abdou Lahad wala sëñ Abdou Khadir jiite. Mm-hmm. maam da baax def na loolu. <laughs> ñëpp kaset yaa ngi fi. ñi ko fekke woon ngi fi am nañ si ay ay ay ay ay souvenir ak yoo xamante ni luñ koy fàttali la. Mm-hmm. li ma bëgg a wax foofu muy nit ñi. nañu ànd ak dal. ànd ak tey te yëpp da nga koy jëmalewaat ci réseau fa laa jëm te réseaux sociaux yi nga xamante ni moom lañ nekk mm. comme ni ko Ndoye Bane waxee di si wax naka su dul noonu ñu xam ne jamono bañ toogee di ko def mu ngi mel ni tey ma ubbi woon alquran di ko jàng si sama téléphone bi smartphone bi tey jii ku si nekk si def sofaan alquran ba ma koy jàng jamono ma koy jàng di am tuyaaba jamono ba ngay toog di saaga nit ki wala di ko wax sofaan wala naka su noonu lañ lay bindalee ay bàkkaar il faut ñu xam ko bu ñu defee ne c'est quelque chose d'anodin da ngay ñëw def nii rek wax boo paree jeex na jeex na déedéet yàlla moom moo wax mu ne waqulu linnaasi xusnan nee na bu ngeen di wax nit ñi wax leen leen lu rafet sallallahu alayhi wa sallam ko ne képp ku gëm yàlla ak yowmal allah ak àllaaxira booy wax waxal luy defar waxal lu baax waxal lu yiw soo ko mënul nga noppi tey allah macha allah waaleykum ah, salaam mbokk mi bisimilah ah, waaw Eva naam maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay bu baax a baax sa gën la yaay moo lay nuyu yaa booy ziyaara naa la delloo ziyaara bu la yàgg sopp nag <laughs> maa la gën a sopp yàgg laa bëgg alhamdulilah ndax xam lu tax li tax sama benn doom waaw bu ma yoroon nekk ak man yàlla def lu ci gën mhm. mu ñuroog yow nag bëggoon la macha li may wax ak yow sax maa ngi lox wallaahi <laughs> bëggoon la lool saa doon génn rek mu ne man Eva rek moom laa seetaan ci télé mhm. boobu ba léegi nag maa ngi la bëgg jot mënu fexe ba jot la mhm. man nag yàlla def la ci gën ci moom yàlla foofu di noflaayam allahumma amin yaa rabbil alamin léegi nag su ma la gisee rek sama xel yëpp. day dem ci moom ma ñaanal te ñaanal la. waaw ndax toujours damay toog di leen déglu macha allah macha allah yal na yàlla guddal fan wi. amiin yaay. yal na ko yàlla yokk. amiin yaa rabbi yokk sutura gi. amiin. yokk xam-xam bi. amiin amiin. kattanu yàlla sunu borom bi. amiin. yàlla nga ko doog a doog a ndax ni mu gaañoo léegi. war na am 5 ans. ndeysaan. te toujours sama xel day ne ci yow. foo foo dëkk fii. maa ngi dëkk Liberté 3 Sicap. Ouest Foire. Sicap Sicap yow nag damay ñëw seet si la sama bopp. <laughs> wallaahi wallaahi. da nga bàyyi sa numéro ak euh, ñoom Mia. ma ñëw seet si la sama bopp te du yàgg. yàlla la mos a bëgg ci sa xolam. daf da ngeen am trace. <laughs> ndeysaan dem na. Mhm. sunu morom boobu yàlla ko yàlla yërëm. amiin amiin yóbbu ko aljana. macha allah mm-hmm. oustaz euh, mandu baax na de. waaw mooy li ndoy di wax rek mm. gis nga ñàkk a mm. mooy li ma wax mooy li yàlla waxoon rek. wala te jot sa suuf bu leen di kës mbiri jàmbur xam nga lu tax. Mm. yàlla nee na bu fekkonte ne ku def. ma téye sa loxo yéen ñëpp seen loxo ngëb naa ko. ndax ay def kat wóor benn ci man. allahu akbar ñépp si te bu ma fi toogee wax nga. si walaw yu bi ah. ma kasabu. aw bi ma zalamu maa taraka ala zahriha min dabba la yàlla wax nee na duma bàyyi si kaw suuf sax dara luy dukkat. ci waaja dafa ñëw yowmal qiyaam si nettali. Hmm. mu ñëw yàlla xool ko ne ko ah ndooy marhaban yow aljana. Hmm. waa ji mel ni ndooy rek ne waay man ba ma demul aljana kuy dem. ndax bi ñëpp nekkee si dëkk bi def leen neex sa àll balaa dem. jàpp julli woor jaamu yàlla ba faatoo fa yàlla ne ko kaay da foog ne loolu moo la dugal aljana mu ne ko ah man lu baax rek laa nekkoon yàlla ne ko jamono ba nga doon julli waaw suuf sa doon jullee ba ngay def nii di ko waxi xam nga ñaata mu def nga rey ba muy def nii di ko wax di waxi suuf si ngir ndëg yaak yay jameek yooyu bañ ko jam bu sëggee su joot yàlla ne ko ba ngay waxi est-ce que xam nga ñaata mbindeef nga rey kon yonent sallallahu alayhi dafa toog ne amul kenn ku sa jëf di dugal aljana ñu ne ko ba si yow mu ne ba si man yërmande yàlla rek moo may dugal aljana yàlla nu yërëm ñun ñëpp moo tax cheikhul xadim radiallahu anhu ne woon yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin mm-hmm. ñu ne ko looy ñaan mbàkke mu ne irham jami al wara yaa haadiyan radaa mu ne yow mi nga xam ne yaa yor nguur yaay dogal yaa ab kantan yaa am lépp yërëmal képp kuy mbindeef amiin yi nga xam ne yaay jubal képp koo xamante ni moo dëng li nga siy déggee mooy réseaux sociaux yi mm. defaru ña ko defar nag defar ak communication ak nangam moo leen taxoon jóg hmm. mais yow mi koy utiliser. Hmm. yaay am fulla yi xam li la sa diina may. dëgg la ak li la sa diina mayu. nit day am fulla fi nga fi nga daanale. man bu ñu doon séddale damay wax fulla man fulla dama ko bëgg. ci nit ak fayda. yàlla moom la gën a soxlaa si nit. ah fulla ak fayda. nee na na ngeen am fulla yàlla suñu borom moom moo ko wax. Hmm. nee na ndax li ma bind yëpp. waaw yéen yéen a ma si gënal. yéen comme yéen moo ma si gënal te fulla jooju laa bëgg ngeen di ko doxee diine ji boo si àndul ak fulla yàlla nee na man soxlaaw ma fulla fayda dox farata fulla ak fayda dox farata na patt wax farata na patt <laughs> bind farata na patt waaye saaga nañ naa saaga waaw xas nañ naa xas imagine kii wax nañ ma nangam danaa toll audio muy wax am na foo xamante ni bu fa toll woon réew mi mën na faa jaare jur loo xamante ni lu kenn xamul bomb bomb la woon te loolu ndoy dogguma la ma jox la si deux secondes te loolu xam nga lan moo ko waral audio yooyu li si ëpp iñaan ndax yàlla mu bind ay bindeefam ku si nekk mu tànn la jox la la ko neex nee nañ may ku la neex dénk koo wóolu yàlla jox ñi ko neex li ko neex yow lu soxol di bone looy iñaane looy soxore kañ naan fonkul muur. yàlla mooy maye. yàlla mooy maye effectivement gën nga euh, Eva dafa am benn waay boo xam ne ndeysaan mun naa ne wooy mun naa ko li ñuy wooyee fii ci dëkk bi kilifa rek. Mhm. mooy jamono yi nga xam ne dama daan lire commentaire ay 2014 yooyu xam nga. <laughs> dama daan liir commentaire jamono yooyu. kon liiratoo commentaire. yow ba ma dikkee la naka wax nag. ma ba ma dikkee la ko bàyyi. non yuusoo ma ko tere. ah kon jéem yuusu. grand moo la ko mujj tere. moo ne ma nekkal ci li nga ne te dox sa dox xanaa gisoo ma nii la ma ko waxee ma ne ma ne li ma ne. kese boobu sax la. ci ba mu bàyyi yooyu la sama ñaawee bi xaw a wàññeeku. Ah? ba ma bàyyi lire ay commentaire rek ak defar xam nga man defante man nag ma daan def ma def la ñuy defante. yàlla tere soo ma saaga ma saaga la soo ma nanga nangamee man noonu laa doon def ba ma ko bàyyi. te te te te te yooyu ba nga ko bàyyee loo loo fil xale loo loo soo ci nekkee da ngay diis. ko bàyyee da ngay woyof porte boo fëgg moo ubbeeku. ceeti gars yi ay commentaires. maanaam yaa ngi may wax ne fitna baaxul. voilà bu mu am na un jour ma ni leen. Ah. nekk leen ci internet bi saaga nit ñi. fii ak 10 ans 15 ans. Ndoye Bane tabax fi immeuble bu mag biir ndakaar ak yor oto yi garaaw di yor ay milliardaires ngeen naan fu mu jaar. mooy fi ma jaar mooy moment ba ngeen nekkee ci internet bi di wax seen wax yi ñàkk fayda yooyu. Hmm. ak di saaga nit ñi moment boobu ngeen toog temps boobu ngeen toog di di ko jël di wax ci nit ñi. Hmm. lu bon lu bon moment boobu ñoo ka ca ngeen di wax. Hmm. xamu leen ma ngay. dóori waar lu ko jëmale kanam moom benn waaye jékki-jékki dóor ma benn message bu saf sàpp bu ñaaw bu salte ma cliqué photoom xool ko ma gis ko ni mu mel ma xool ay photo ay photo yi ameem ma ne kii de warta doon nit ku bon nii laa ko waxee ma daa koy envoyé message ni ko man la Ndoye Bane mun ma ay eh, après man ko xam ah, mais lim saaga bi nga ma saaga dafa ñaaw kat moo dogoon bëggoon ñu waxtaan ndeysaan noonu ñu waxtaan ñuy wax muy wax ma koy wax ñuy wax ma koy wax ba yàgg ñu joxante numéro ma woo ko ñu waxtaan bu waxtaan bu mujj gi mu invité ma teeru bi. moom waa ji. man ma dem teeru bi toog ak moom. nit ku baax la. mais sa waay toog di ma jéggalu toog ma moo ma mag de. toog ci suuf. ku fay añ ba moom wala. moom moo fay lépp. man ak moom ak man man ak moom ak benn xaritam. mu may jégalu waa ji ca la pare ca mooy ca la pare. nit ku baax da doon sayte rek voilà mu ngi noonu. mais saaga waa ñaaw ci moom. déedéet boo leen soo ko gisoon tey jii moom. boo leen te ma ne kii moom saagoor saagu ñaar. da nga naan boo leen boo leen toppee rek. Mhm. da ngay bàkkaar te alquran dem la idfa billati hiya ahsan. Mhm. bu la nit saagaa yàlla nee na bul ko saaga. faye ko teranga ndax yow loolu yonent sallallahu alayhi wasallam def na ko te yàlla moom rek la ñu royloo ba nga xamante ni ñu bari jaare nañ si dugg nañ nee na bu la nit waxee safaan fayee ko teraanga fayee ko teraanga dama wàcc ren Médine Médine laa wàcc hmm. xaw ma mag am na cëpp rek benn waay dox rek dab ma ne ma baal ma àq ma xool ko ma ne ko lu xew mu ne ma nee ma baal naa la rek ma ne ko lan moo xew mu ne ma dimbali ma ngir yàlla wa rasuul da nga armal ma armal nee ma rek baal naa la ma def wallaay wallaay ma ne ko maa ngi armal danaa dellu seen déet yàlla la wóor mu ne ko baal naa la ñu tegaat si ñetti fan dajawaat mun naa mu ñëwaat nuyu ma oustaz wóor na ma ne baal nga ma ma ne ko baal naa la mu ne ma sama xel dal na wóor na ma ne sama aj dina nangu te laaju ko ba tey lu tax mais moom xam na xam na mais toppatoo ma mhm. salaa sallam da doon def lu baax mhm. nit ñi di ko fayee lu bon yàlla ne ko bul fayee ko lu bon de mhm. ndax mbaam bu la wéexee nga wéex ko yéen ñaar yéenay fa fi yam idfa billati hiya moo tax réseaux sociaux yi boo si nekkee ñu xas la wala ñu saaga la yow itam jamono ba nga toogee di bind di tontu naan da ngay xas yaa ngi am bàkkaar ba pare yaa ngi wayadi ba pare ka ngay xas wala di ko saaga ne dañ koy tontu moom mi ngi si leneen di la perte loo temps dëgg bu ko nangu yow amoo temps perte loo temps taxawal foofu dafa mel ni réseaux sociaux nag boo ko utiliser wul à bon perte nga sa temps adduna bi hmm. temps amu fi dañ koy perte hmm. ndax dund bi dafa gàtt Eva ku la wax ne diggante l'an 2000 ak léegi am na presque vingt ans avènement wu président Wade ñu ngi koy nuyu bu baax. ak léegi vingt ans man damay damay tiit. am na de léegi daanaka ñaar fukki at. jamono bi ñu naan wuyu président waaleykum salaam wa rahmatullah gaaw na de. ñaar fukki at ci ren. waaleykum salaam wa rahmatullah mag nga na. <laughs> mag la ay waay yàlla naay gën a mag waaye. waaleykum salaam noo ngi lay delloo ziyaara bu baax. maa ngi yàq waxtaan bi mais ziar naa leen bu baax. déedéet yàqoo ko da nga caa war a dugg te dugg ci. waaw émission boobu dafa neex rek moo tax mooy woote yàgg naa bëgg a woote te mënumaa dugg. ndeysaan. ay at sax laa la mën a wax mais su ma duggee ci ligne bi ba bopp war a dugg rek affaire bi xat-xat moo may jàpp ba du ma mën a dugg. ndeysaan. waaw seen soppe la rek mais oustaz Assane rek moom dama ko yàgg suivre. dëgg la jërëjëf ñuy ziar. waaw mu neex ma lool rek. dëgg la jërëjëf ma di ko ziar maa ngi tudd Serigne Mansour Diop. ñuy ziar baax Diop. waaw sëñ bi nu ngay tàggee sëñ bi ci kàddu yi muy wax. jërëjëf. nga koy wax ci bi ñu koy jëfandikoo. jërëjëf loolu lañ doon jëlee. ñu ñaan yàlla yàlla di ko nangu. amiin waaw maanaam di ziar bu baax a baax a baax. dara taxul ziar rek. ndeysaan ndeysaan ñoo ngi ziar euh, Serigne Oumar Diop mu mm-hmm. sëñ Mansour moom mm-hmm. itam. macha allah di nit ku baax. Mm-hmm, ah, xaritu sëñ Mansour. ndeysaan ah, ah. te gis nga gis nga may félicité ñi nga xam dañoo nekk ci réseaux sociaux yi di liggéey. dëgg di ci am weccet. dëgg la yor ci seen kër yi. dëgg la yor ci seen yaay yor seen baay yor ci seen doom hmm. muy góor muy di jigéen. amuñu beneen temps bu dul liggéey. ci hmm. réseaux sociaux hmm. ci bëgg a baax ñi ngi ci bëgg a baax. mais man ba ma mënul comprendre tey jii. réew moo xam ne Oustaz Assane. ma waxati ko rek. sama boobu dina booy seen nopp dina leen fàtt. réew moo xam ne da ngay tooñ. ñëpp xam ne ñëpp xam ne yow kii ab tooñkat la. mais dafa am ñu lay supporter. te ñi lay supporter Eva. mel ni ma taxaw di wax lu ma neex Eva naan ma wéy wiiw wiiw wiiw te Eva man lu ñaaw li may génne sama gémmiñ gi Eva mu ko wax mm-hmm. te Eva ngi may supporté mm-hmm. te lépp ci réseaux sociaux yi lañ koy lañ koy jaare mm-hmm. léegi nag tey ji ki ngay tooñ su xëlbatikoo sanctionné la ou bien mu xëlbatiku fayu société bi ni la lu tax ngay fayu maanaam Sénégal xamuñu ku tooñ ku fayu la loolu laa mënul comprendre xam nga tey jii nii kii fayu waaw mooy du dëgg parce que bu ñu la defee dara nga fayu rek mooy que ne loolu mer nga am na fu mu la toll. te waxuñ ne nit ku dul mer amul ñëppay mer mais bu ñu la tooñee am na foo xam ne boo fa yeggee si àdduna moomatuloo sa bopp. tolluwaay tolluwaay la dimension la waroo fekk waruñ la àtte si waxin waruñ ñëw di la taaj. comme niñ koy xale yi di waxee di sant waroo ñëw ñu di lay woo di la yedd donte la yeddaange kenn na jomb ko mais toujours yow yaay jël hauteur parce que xam nga lu tax mm-hmm. sama loxo bii juróomi baaraam ñoo si ne te benn loxo la ñu nekk waaye benn tolloo si ak sa moroom kon mhm. wax ci yow. waaw ku nekk kon ku jiitu nag am lu ñu la xase mais tooñ boobu ñuy tooñante si biir réseaux sociaux yi di xas di saaga di nangam yàlla daf ko araamal. yàlla dafa si xadiisul qudsi mu ne. yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharraman mm. fala tazaalamu nee na yéen samay jaam dama wàccee tooñ mu nekk loo xamante ni dama ko araamal sax man sama bopp. wa maa rabbuka bi zallaamin lil abid la yàlla wax yàlla ne man du ma tooñ. te tooñ googu dama ko def mu nekk loo xam ne dafa araam seen biir kon bu leen di tooñante tooñante mënul weesu nga waxal nit sofaan ba pare publiquement dañ na gor soo ko yeddee si biir mbooloo yeddatoo ko xas la allahu akbar nit bu defee sofaan sax su ma dikkee tey ne la yow Eva yow nàngam kon xas naa la wax ko ci kanamu ñëpp xas nga ma woo ma bu ma ñëw nga ne ma oustaz. wala ah. nga yëkki sa téléphone. waaw ma nangam wax man de dama gis ne nga wax nga nangam wala def nga nangam. mais yàlla yàlla ak a silbi. dafa dafa lépp <laughs> dafa bëgg mu su sutura. yow may xas. Ndoye Bane wala Eva mbaa oustaz Assane jamono am yaa ngi def loo xamante ni bu yàlla ne woon nii sama naanu sutura too xaj ci kaw suuf. léegi yow nga jóg pour xas nekk si réseaux yi di xas di bind non seulement yaa ngi am bàkkaar mais perte temps bi nga doon wax yaa ngi koy am. te nu soxla dafa ne laa tazulu qadama abdin yawmal qiyaam hatta yusalu an arba'in. Mm. nee na yawmal qiyaam kenn du séq benn jéego te ñeenti yi duñ la ko laaj. an shababihi fi ma ablah mm. sa ndaw si lan nga ko passé sa jeunesse. nga naan dama nekkoon si réseaux sociaux yi di nangam loo fa nekkoon jàng sa diine wala déglu oustaz wala déglu ndoy baan wala eva lu la yee nga ne déedéet seetaan lu ma warul seetaan wax lu ma warul wax commentaire lu ma warul commentaire mm. yàlla ne sa ndaw si loolu nga ko passé nga ne mm. waaw mm. mu ne waxaan euh, umrihi fii ma af naa sa dund si lan nga ko jeexale mm-hmm. si lu neex yàlla wala si toon nit ñi wala si yàq si deru gor ñi wa an maalihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu sa alal foo ko jëlee ak foo ko def kon tey jii nii ba si ñi nga xamante nii tey dañuy alimente si réseau sociaux yi yor ay site walla nangam di sos ay wax di créer pour jaay lañ say am yépp dafa aram tegal foofu baaraam am na ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ah macha allah ajaratu bisimilah. soxna si maa ngi lay <laughs> maa ngi lay delloo ziara. man dinaa dem léegi ci réseaux sociaux yi bind borom seen tiir bi. xam nga borom ceinture bi moom nangu na xas nangu na leneen la ca topp ku ko tagg bu jël ku ko xas bu jël. su ma paree bind borom koppati bi naan ma takk ñaareel ñu bindal ma. man daal soo soo gaawul coupé. moo te man dama fogoon ne bi mu nee. asalaam ma yére bu ñuul bi ci bu kii euh, mami dama fogoon ne soxna Safiatou si Jamil mooy woote parce que man tey foofu nga ma yóbbu. mais man ñooñu laa xarit mais man ñooñu laa xarit. sol man nit ñi baax ñooñu rek. Eva eh, daal yére bu ñuul la sol. jë jë. moom bi ma ci xam mooy bi ñuy diw ci bopp. alhamdulilah simila mami bisimilah bisimilah. wuy ma xam nga rek xam nga réseaux sociaux yi la bëgg a may luñ daggati tey bind ko. ma ni bisimilah rek yow daal ñu ngi lay déglu ñun. mais Oustaz Assane sëb la baax na ah. mami maa lay ziar bu baax te du soppeeku de kii ma tey mami mu ngi nii rek yàlla na lay yàlla yow tam maa ngi lay delloo ziar bu baax. naka <laughs> sëñ bi <laughs> ma yow lay nural moo tax muy jooy. mami ñu ngi ñu ngi waxtaanee loo loo xam dara tuuti maanaam mbirum réseaux sociaux yi. Eva. waaw. ponkal mu làqatu lekk ceebam ba suur. waaw. naan potum ndoxam teg ci lëwalam. ah lëwal mooy ataaya ataaya bi. lëwal kamal këccal ñetti kaas yi. ah. làqatoo clavier. ah. di ma saaga du ko tontu ndax li oustaz wax laay bañ mooy perte sama temps. xam nga mos naa toog ci plateau bi ne la réew mi léegi dañuy nar ba pare di ci frais. Mm-hmm. Mm. di fen di ci frais. ay. da jënd connexion dix mille bi. Mm-hmm. ñaari junni. toog di ci wax lu dul dëgg rek ba ngoon jot nga dem tëdd. subhanallah. bokk nag association maa lànk tekkee ma ñorut loo nekkee gis ku la gën nga di ko saaga. <laughs> gis ku bëggul di yow. xam nga Sénégal li fi metti noonu amu fi ay noo comprendre ñoo fi am. nga ni. Sénégal noonu amu fi noo comprendre ñoo fi am. ay jaloux kay fi am jaloux. Ah. waaw mooy noo comprendre ñu doy baan xam nga lu tax. waaw dañuy bëgg di yow na àdduna bi yàgg bañ doon yow. léegi nag xam nga problème bi mooy lu euh, gar di wax boo bëggee bay baxaw te mbott mu ngoox nga tàcc ko doo yeggale doo egg fu ñu jëm. doo dem fenn de. mbay gar mi mu ne la. boo bëggee bay baxaw te mbott mu ngaax nga dafa am benn waay bu mu ne man daal li ma tardeel mooy ñaari baara yi ñu ne ko yan ñaari baara mu ne baara mi ci kër gi ak baara mi ci àll bi. waaw. dafa am surga bu tudd baara te dafa jàpp ne jabar ji dafa sopp baara. <laughs> mu am ñax gu nekk ci àll bi guy yàq mbay mi gu tudd baara. Mhm. waaw. su demul bay ñax moomu dana yàq tool ba. waaw. su demee ca tool ba bàyyi baara mi ci kër gi xel mi du dal. waaw. mu ne su ma toppee baara mi ci kër gi baara ma ca tool ba dina yàq ñax ma te bu ma toppee baara ma ca tool ba itam baara mi ci kër gi dina yàq kër gi. Hmm. ba léegi nag da nga ciy buddi benn sànni mooy ko comme ñun bii daf ñoo dab. mi ngi bëgg a ñàkk suñu askan ñun war a am mag bu tool ne dindi ko laa la wax ne la Cheikh Abdoulaye Ndane suñu sëriñ bu baax ba nee na ku am fu lay yàqal ma li ma yor ma am fay day dër bu nit tey. waaw waaw. nañu delluwaat ca amoon. Hmm, hmm. da nga wax sànq yow oustaz lu am solo ba doy baat di ko dëggal mooy que bàjjan léegi mooy whatsapp bi. Hmm? te fay sa bàjjan bokkut ak sa bàyyi dara. te daa dukki dukki ak ndaw. yomb nañ ko ndaw na ba teeral ay dàllam dagg nañ ay padam ñaxat la soloon. Hmm? faaw nag mu toog nag benn place nag. padam njaxe mooy yooyu ñu doon sol ca kanam ak ca gannaaw rek wala. ma ni padam njaxe mooy yooyu rek euh, ngay kii rek sol ñu daan takk xeet ci pono yi mu mel ni lance-pierre walla waaw léegi xam nga ku ko sol ba mu dagg day bëgg morom ñaar yàgg ngeen beneen bi ci topp mooy maa ngi la koy wax démb hmm. ponti tëj na hmm. relais amatul xale jigéen yëpp ci internet bi la ñuy jaayoo. c'est la prostitution. ñàkk kersa weesuwul wow bët weesuwul nga bind man la diw sama numéro téléphone nangam ku bëgg nangam du neex ñëwal fekk ma sama nekk. te soo wootee jot nit de. Ah. waa gi ñàkk kilifa gi ah. ñàkk nday ak pour lan la. léegi góor ñi dañ ci yàlla musal. te góor ak jigéen a ko bokk di ko def. Hmm? heure boo ubbee Facebook léegi fekk leen ca. góor ak jigéen mu koy Babacar dafa mel gis naa ko ci. Babacar demu fa dafa jóge Màkka ñu dem ba léegi ñi ngi xiirtal suñu doom yi ñu gën a dugg ci ñu kon. ceey. beneen bi ci topp mooy Eva yàgg naa laa wax ne la snap bi moo yokk xale yi jigéen ñi jaayu buñ tegul fenn. mooy bi ñuy def nii parce que suñu papa yi dina am ñu ko xamul. waaye ku snap yaa ngi may gis la Pape Cheikh doon wax jumaa ju ne muut. <laughs> doy na ah, gis nga seen macha allah seen photo yi seen yi ku ci ajaratu mami ñu ngi koy nuyu. seen xeetu photo yii ku ci basé wu ba takk ci jabar di ko réccu snap yi dañuy photo seen portable yi retouché ko ba rafet. waaye yéen itam lu leen leen ca naka lañ ko maa ngi leen di ñaanal yal na leen dal. déedéet ne ñoom xam nga gis nga ma waxaat ma dàq kii léegi dàq gannaaw naka sa soxla waaw dañu bëggatul lu réel lu vrai. Mm-hmm. ñu ngi bëgg fekk. Mm-hmm. bëggu lu lu lu extraordinaire. Mm-hmm. dama ñun moo tax amuñu sens. xaaral ma ñëw dañuy jël seen photo seen portable yi. photo ko pare laalaat ko. ba foto bi leeral ko. ah filtre la tudd de filtre ko gome seen kanam yi ngay gis koo xam ne yaram ba kanam gi ay pax la mu gome pax ya diwu ko def ci lu nekk. ba mu rafet mu posé ko. yal na leen daal ustaas si gis ko miir. ah tudduma leen animateurs yi gis ko miir. Mm. journaliste ku ko gis miir nga dugg ci bis boo leen amee rendez-vous nag ba war a daje. Ah. ci ngay gis pax ya yëpp nga naan kii du kii ma gisoon. dégg comme ni mami wax ñi ngi jaay seen bopp ci ci ci ci ci réseaux sociaux yi. Adja Linguère wax na ko de. ci Facebook bi ci partout <coughs> affaire bi fi nii dafa dafa dafa dafa dafa dafa jéggi dayoo. yàlla yàlla soppi leen dafa jéggi dayoo trop mm. trop trop mm. trop. mais oustaz mi ngi woon fu am fu am solo. Mm. ci soxor. soxor gi. Mm-hmm. dafa gën a yokk bi réseaux sociaux yi ñëwee fii ci ci ci ci ci ci réew mi. Mm-hmm. maanaam tey ji bëgguñu ko avancer ci dara. Mm-hmm. Eh, ma oustaz wax nag ki lay saaga en général wala ki lay critiquer en général daf fekk moo nga raw ko soo seetlul seetlul ci Sénégal ñi ñuy critiquer ñëpp ci fi réseaux sociaux yi xooleel ki ñuy critiquer ak ka koy critiquer comparé leen ci ka ñuy critiquer xamul ñi koy critiquer xamu leen mm-hmm. par exemple ñoo ngi critiquer Ndoye Bane ña may critiquer man ñoom lay liggéeyal man su ma Eva critiqué woon wala Mia wala Bobo Ndour wala euh, sama directeur wala kii sax mu saf waaye ñi may critiqué ay nit ñoo xam ne xamuñu fu ma nekk la mm-hmm. da nga lay critiquer su fekkoon critique ci affaire liggéey bi rek daal yam mm-hmm. ñu modéré compte yi amul problème nit ki war na nangoo critique mais da lay critiquer dugg sa vie vie privée saaga la dafa la wax lu nak nak su dul noonu wax yi ay wax yu dépassé yoo xam ne mm-hmm. jégg na dayoo nga ni xoole ki ñuy critiquer ak ki koy critiquer en général yow ki ngay wax ci moom moo la gën sur tous les plans dañuy fekk ku leen gën wax naa ko keroog da ngay fekk ndoy baan mu sëriñ yàlla gërëm yonent ko Cheikh Bass ko gërëm ko waa Pire gërëm ko nga koy nga koy nga koy saaga loolu foo ko teg. xam nga li ngay wax nii dama siy sof. Ah? dama siy sof xam nga. ban mi mi dafa wax lu am gërëm yaa gërëm. mami dafa am lu am solo lu mu wax. mu ne nit ki day gërëm nit ki day toog. nit ki day toog jël ñaari junnam jënd jëm jënd ko connexion. mu nekk ñaari pertement. 10 000 francs. ñàkk maanaam am nga ci ñetti ganaar yoo togg ceebu yàpp. Ah. ceebu ganaar léegi yow. te wax naa la sànq ne sallallahu alayhi nee na sa xaalis dina la laaj foo ko jëlee ak foo ko def nga ne dix mille bi connexion laa si jëndoon loo si def nga ne ndoy baan laa si saaga Eva laa si xas oustaz Assane laa si jëw maas laa si wax lu naka su dul noonu moom laa si sosol yàlla ne ah waaw mu ne la kon yow amoo man problème xaaral ba ñoo ñu ñëw nga rek ngeen rek sa différence. te bu nu la baalul moom yàlla yoonam new ca. ak a màndu. allahu akbar. am na bàkkaar yoo xam ne. Hmm. yàlla du si intervenir. nee nañ jamono ba nga xamante ni ka nga tooñ rangoñ bu mu génne rek safara lay doon si yow. man li ngay wax maa ngi bëgg a jóg tànk jéggalu la yoonu sallallahu alayhi wasallam ne kii ñu tooñ bu ne yàlla defal nangam diw rek koy def dama lay nett benn anecdote waa ji dafa am doole ñëw gis benn waaye bu napp jënam ba pare mu ñëw rek foo xëti jën bi dem hmm. ni mu foo xëtee jën bi waa ji xool ko xam na mën a lu ko dara rek mu am lu mu ñaan jën bi xaw ko matt tuuti si baaraam bi nii rek mu dem togg lekk ba suur moom ka nangu jënu jàmbur ñu dem ba jëmmi jamono affaire bi infecté commencé yeeg ñu dagg fii mu demaat ñu dagg fii mu dem seeti borom xam ne ko sama fii lañ njëkkee léegi mu ngi fii médecin ba ne ko fii la jëm mu dem seeti borom xam ne ko lu siy pexe mu ne ko loo def mu ne ko diw jë maa jël jënam mu ne demal nga baalu ko yaa ngi dégg bi mu demee baalu ko kooku ne ko man dey dinaa la baal waaye la nga ma def keroog métti na ma mu ne ko dama bëgg xam sax loolu moom fi indi lan nga ma def danga nga ma liggéey wala dafa am da nga ma xaatim wala dafa am loo def ba tax li ma arrivé arrivé ma bañ dagg sama mu ne ko dama keroog ba nga ma tooñee ba sama rangoñ tuuru dama ne yàlla kii ni mu ma wane kàttanam yàlla nga ko wan sa kàttan nga Eva. Eva def nañ benn émission. c'est fort. Eva kii ni mu ma wane kàttanam ba nangu sama ndawal. yàlla nga ma wan sa kàttan si moom. Eva. il faut attention. gor ñi ñuy tooñ wala yu yàlla ñi ñuy tooñ hmm. di leen xas di leen wax naka sudul noonu hmm. am na loo xamante ni boo ko defee amatoox nit ki affaire borom bi subhanahu wa nga am affaire hmm. te yàlla nee na tooñ dama ko araamal seen biir te yow yowmal qiyaam yàlla nee na doo gis sama ker ak zulmu yow yowmal qiyaamati benn tooñ yàlla nee na pluriel la utiliser ay ombre ay lëndëm lëndëm la lay jural yowmal qiyaam doolu macha allah avant élection yi def nañ fi bet nañ benn émission ci rajo mhm. bi émission ba xam naa ne ñama ko dama ko defee am na ñu mu arrangé wu benn groupe bu mu arrangé ñoo mhm. ñooñu jël créé seen groupe whatsapp man dugal ma ci biir groupe bi mhm. toog nañ une semaine une semaine di ma vocal di ma saaga tuddee seen bopp xorom xoma lan waxtu bi dab nañu madame Ndour xoolal di ma ko dóor di ma ko dóor une semaine mu musuma cee tontu ba léegi mais ma dem ba identifié ci identifié ci ñetti nit man maa dem ci ñaar section de recherche bu Colobane mm. porte leen ba plainte ci identifier kenn Touba marché Ocass dem ba xam place am dem di ko jëli fekk ñu ko fa ñu tegaat beneen semaine dem di ko jëli fekkuñu ko fa mm. ba léegi gisuñu ko quelque temps après ñu ni booy bi dafa accidenté fi mu nii may wax ak yow maa ngi télé laay waxee fi mu nii yenn saa yi ma woo ko ni ko alors tooñ baaxul booy bi dox sax mëntu ko <laughs> tëjum xoolal tey doo ko def dara. léegi maa ngi la koy ñaan euh, ñaanal ko mu jug doxi ay soxlaam non non man man defuma ko dara de. te mu xam naa dama koy wax rek tooñ baaxul tooñ baaxul. ci groupe am la ma dugal bis bu ne mu xorom ma dama koy woo ko alors monsieur xorom mbaa yaa ngi tane non c'est vrai dox mënatu ko tooñ baaxul te du gàll man kay jéggal naa waaye daal yàlla xorom ko mu jeex dégg yàlla baal ko ba mu am na ñoo xam ne daf ko wax sama sama yaram daw yal na yal na nu yàlla def nit yu maandu ne Eva ngi bàyyi mbiram dem concentré wu ci Mami Linguère ah. ndekete woo ba ngay concentré wu ci Mami Linguère sa bopp nga waroon a faj te fajuwoo yal na yàlla jubal nu baaxal ñu macha allah lépp kenn mënu koo wax waaye yàlla baax na oustaz lan ngay tàggatoo am mbégte rek Eva partage ak yow plateau bi ak Ndeye Bane ak téléspectateurs yi ñu doon àndal si émission bi nga xam ne wax dëgg yàlla mhm. képp ku bëgg jëriñu rek saa yoo xëyee bu waxtu bi jotee di taal sa télé ndax tam yu am solo lañ fi indi di ko waxtaane mhm. te ñu yàlla may itam ñoo fi toog te li ñuy wax lépp nag am jàngale rek te nit moom la yéen sallallahu alayhi wasallam waxoon nee na njàng moom si berceau bi lay tàmbalee ba si cercueil ba mhm. maanaam amul fu muy yem li may lancé comme message rek mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nee na mhm. na nga fàggu juróom balaa juróom di ñëw mhm. ñu ne ko ban ak ban mun a shababak qabla haramik avant baa xam nga ne ñu ngi gis ñu amoon ñu am quatre-vingts ans quatre-vingt-dix ans cent ans âge bi ñu amoon lañ amoon dafa am loo xam ne mu ngi ñuy dàq te dañuy dab ñun ñëpp télé télé mu ngi ñuy dàq. dina ñëw te day ñëw. wa man nu ammirhu nunakkishu fil xalq afala yaqilun wala afala taqilun ñaar yëpp baax na sa suuratu yaasin yàlla nee na mm. ku ma may gudd fan rek am na lu ma la booleel mu ngi lay dàq muy télé bés dina ñëw mu ne la nuut ne la toogal. Mhm. kon sa ndaw boo nekkee jeune sa jeunesse mhm. da nga siy profité si lu positif le maximum possible. Mhm. ndax màgget a ngi ñëw dee ngi ñëw yàlla na yeex. ñu ne ko ak ban. mu ne jamono bi nga amee wér. da ngay profité balaa wéradi di ñëw. mag rek doy na wéradi. comme niñ koy waxee te mag yi ngi ñëw. ñu ne ko ak ban mu ne rek soo amee. defal te yàlla tax balaa ñàkk di ñëw am na ñu amoon tey amatuñu. loolu nit ku nekk war nga si bàyyi xel ñu ne ko ak ban mu ne wa faraaxika qabla suxlik li ñu doon wax jamono boo amee temps ba ñàkk temps balaa ñàkk temps di ñëw bés dina ñëw dootoo mën a yëkki tànk dootoo mën a yëkki loxo dootoo mën a yëkki dara sëñ Muntaxa wax na ko barke démb nit ñi nañuy xalaat seen bésu sukkuraat seen bésu tëdd seen bésu sukkuraat seen bésu dee seen bés bi ñu leen di dugal biir suuf nañ si bàyyi xel juróomeel bi fa laay jeexale mooy wax waxayaat ak qabla mawtik sa dund profité aussi mais si lu baax si lu positif ndax dee ngi ñëw mu ngi ñu dàq dañu jàpp kañ la fan la nan la kenn rek moo ko xam mooy yàlla kon lii maam Abdou daan wax rek laay wax radiyallahu anhu yàlla na yàlla tàppe xol yi nañu rafetal yéene yi nañu bëggante nañu soppante ñuy jàppalante te yéenante jàmm te yàlla rek a tax ndax kat yéene moom mhm. balu tañ sa la boo sànni si miir bi mhm. tôt ou rek si yow lay dellu si jërëjëf Seck Ndoye Bane lan ngay tàggatoo jaajëf di remercier Oustaz bu baax a baax rek mm. di féliciter képp koo xam ne yaa ngi ci réseaux sociaux yi te di ci def lu baax dëgg di ci liggéey di ci góor góor lu baax pour mm. loolu la jëmale kanam ak lu jëmale kanam sam réew mm-hmm. ñeneen ñi nga xam nag dañoo nekk ci naka sudul noonu mm-hmm. ci réseaux sociaux yi yàlla na leen ci yàlla soppi mm-hmm. waaye ñi ci nekk ci tamit di di xorom ah ku ci ba arrêté wul ba solo ah mais c'est vrai ku yàlla xorom rek di nga di nga arrêté ba ne c'est vrai tax nga cadreur bi moom jël na micro di wax mais c'est vrai mais li may wax nii noonu lañ koy waxee dañuy nekk ci xaaral ma xorom ndoyu baan hmm. xaaral ma xorom diw waaye soo dee xorom di xorom ay nit ba yàlla xorom la di nga hmm. toog di nga toog loolu noonu lañ ko waxee ci réseaux sociaux yi. les xoromeurs bisa ngi ñëw yàlla xorom leen ñu ñu arrêté. Hmm. yàlla na jàmm yàgg yëpp rek yàlla na yàlla saxal. ci ñu yàlla ñu yàlla boole boole kii rek dañ ko agressé lañ wax ba passeport am carte d'identité am ak permis bi nekk fii ak carte de presse am bu GFM yëpp ku ko gis rek nga indi ko fii Fatima Fatima Evans Fatima Evans bu nekk si Kouthia Fatima Evans. très kon hmm. kon xam naa ñooñu bu leen Kouthia jàppee ngoon rek dana jar ñu ñëw wallaay dinañu delloo si bagage yi nu mu gënee gaaw ñu ngi koy nuyu moom Kouthia ak groupe am ne ñu nitam ngoon dañuy wétali bu baax a baax yal na yàlla dolli ko jàmm. dolli ko xale yi jigéen yi muy invité dama doon wax keroog dama koy seetaan ma ni Kouthia de moo ne li muy def dana tere xale bu jigéen defi leneen wax dëgg yàlla. yal yàlla sàmm ku ci ne. ci la nga nekk nanga ko def ak fulla te itam ñaan yàlla mu doon lu neex sunu borom la ca des nga bàyyi àdduna yi fi xew a fii xew te kenn mënees koo soppe ki gis nen ne lii jaan la mënaloo ko dara lu dul baax baax ko gën yal na nu yàlla xiir ci def lu baax ñu ngi nuy bu baax a baax soxna Kiné Jigo ca Banjul mi ngi nuy seetaan ak yaayu Jami Diallo ndeysaan ñu ngi koy nuy bu baax a baax moom euh, soxna si Tandian am na loo ma bëgg a wax. hôpital CTO day changé tur tey. Hmm. Idrissa Pouy. ñu jox ko. professeur Idrissa Pouy professeur Idrissa Pouy. waaw waaw moom daf na am ah, dafa jaar am na ay jaloore bu yu bari yoo xam ne defal na ko ci hôpital ba. bien def naa moom moo tax ñu ko koy tuddee. dafa baax na professeur Idrissa Pouye ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yóbbu ko aljana mhm. te teg euh, loxo njabootam mhm. oustaz Pape Mbaye xaw Sweden laa lay seet wala Italie wala fan <laughs> ñu ngi koy nuyu bu baax a baax démb na mhm. euh, bu la yàlla bindee nga sopp sa bopp keneen koo gis da ko sopp te na nu mu ko waxee macha la oustaz Modou ñu ngi koy yi oustaz yi la bàyyi nopp ci église bi itam ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñu ngi nuyu monseigneur Benjamin Amé Ndiaye ak archidiocèse bi diocèse bi yëpp nu ngi leen di nuyu soxna Mia Ndour góor baax na jigéen baax na on te remercie et on remercie toute ton équipe macha allah dañu leen di jox rendez-vous altine bu soobee sunu borom may remercier euh, Fatoumata Coiffure ma nga nekk ci 77 648 56 648 56 bëgg nañ leen sopp nañ leen di leen souhaiter bon appétit à altiné incha allahu taala jërë ngeen jëf ngeen baal nu àq Thank you.